moom xam na Sayer xam na ah, kii xam na fi ñu jóge léegi buusa dama ko ne dama toogee parce que ñoom comprendre nañu ba tey comprendre nañu ba tey te bëgguma la ko gàkkal kon defe naa ne kii man maa ngi vee ci sécurité maa ngi vee ci liberté ñi ko seq nañ xam nañ mais du lu ñu wax comme ça presse mais man ak bu amuñu problème mais comme ni mu ko waxee influence xawma influenceurs yi nga la nañu bàyyi ñun géejawaay ñu dugg rek lii sa sa fréquentation mu leer njambaan mi toog tey ay ay am lycée ñoom maar la ñi ñëpp man maay seen mag te man li ma génn abal leen mais ku toppiwul doo am cër man damaa topp saa kajoor ba dama topp saa kajoor ba nit ñi naan ma xanaa dof nga bi ñuy nekk suñu digg digg problème njambaan laa man ko njambaan moo am ne ko maa ngi yeew xar bu trois cent mille saa kajoor laa koy jox mu njambaan dama eey boo ko joxee de da naan nag léegi nag a xar mu ñuul mii xam moom ni mu lay waxee dëggam ak xar mu ñuul mii dañ naan nag léegi nag feebar bi yow la mais imaginel loolu tey na xel da nga daan parce que boobu problème bi mi ngi gën a métti mm-hmm. nii la ma ko waxee ma bàyyi ko benn bi si ma wax <laughs> saa ko yor ko am na benn xar bu ma la bëggoon joxe jamaal boo reba bu ko joxee de jamaal lu muy def loolu pour yow xam yoo xam ni dañ koy dundat même bu léegi-léegi bu ñu waxtaanaat dañuy wax loo xam ne lu passé da nga naan bu démb doon tey loolu lay bañ mu dal ko loolu lay bañ mu dal ko xanaa woon ni xanaa woon tey émission bëggu moon def émission hmm. mais noonu dama lu mu bëggoon a leeral tuuti rek li bu Siteu doon mer di wax mer moo tax muy wax mais guy gi du jël ay jaasi yóbbu signature guy gi du dina defal nag rek guy gi du violence maa moom li ñu doon séq moo ëpp li muy wax ni moom man maa ko xool bu Siteu isilam neex ma Malick sama du ma bàyyi ma fenn Malick ma leen Massa am na mbër juróom Malick maa ngi moom de débat la moom bu doon bëre damay jara man ma dem supporter ji parce que moom ni muy ñëwee ci làmb ak calli calli ji man loolu man loolu moo ma neexoon ba tey loolu moo ma neexoon. sànni yow. Euh, dégg naa la nga naan ma bomb. dé démb dégg démb dégg naa la nga naan démb dégg naa la nga naan ma bomb. <laughs> waaw mais waaw waaw. waaw mais boy ah mais boy ah, affaire bi de yàlla moo ne woon tey nii la ñuy def rek ñun ñëpp vraiment kenn ku ne xam fi nga war a fi nga war a féetewaat quoi comme li ma leen wax rek xam nga ñoom des fois des fois dañuy jël dañuy jaawale tekk ak ak xëbër xëbër xam nga des fois dañuy dañuy toog te yow defe naa su ma la waxee war nga koo gëm defe naa ne man man man man su ma diggante yow yow la man Thierno Baye Mandiaye dund nañ loo xam ni du dund du dund ñàkk fayda yow it nga teg ma foo xam ni man xam naa man fi ma teg man man man man sama wàllu bopp dem nga ci sëriñ ba taay may bëree nga ni sëriñ bi kii mbër mu ndaw la maa koy fayal nangam jël xaalis nga fay ko te loolu koo yéenewul doo ko def non xaaral xaaral xaaral xaaral xaaral wax la rek xam nga xam nga occasion yu mel nii da ngay exploité yow li nga bëgg wax parce que gars yi comprendre ñu protéine bi ma njëkk a naan yaa ma ko yaa ma ko yaa ma ko may ak comprimé yoo xam ne xaw ma ay yàq la xaw waaw waxal waaw waaw dëgg la dëgg la dëgg la ah, dafa juum. dafa juum waaw. ñu jégal ko te yàlla rek tax. ngi géej waaye lépp li nga xam. dëgg la mu dagg de. amul connexion. non làmb ji mu moom métti nii la de waaw ci moom la làmb ji mu moom métti. ah waaw ak benn. mais daal kontaan nañ trop vraiment bu la neexoon doo ko def geste bi bu la neexoon doo ko def ñun yow la ñuy félicité yow la ñuy la suñu rakk la. géej puis am na maa moo gën a beneen muus baax na ba beneen combat dëgg la dëgg la ku dëgg la dëgg la. après non jeex na après yow après xam naa après xam naa fii ak une semaine dañuy dajal booy yëpp may leen benn match bu ndaw. waaw dafa ndànk da ngay téy téyeel eh, fii une semaine dañuy daj dañuy def benn match may leen may leen booy benn match bu ndaw yow nga fubal fii man ma fubal fii mais leen laa lay xamal waxoon naa ko dinaa ko waxati. billaahi wallaahi taalaa benn capitaine mooy am. jox ko jël jox ngi dégg yaa ngi man dafa am lu ma koy bañal boo gisee chaque jour du ma tontu bu musul def vidéo ma ma tontu bu vidéo yi mu def 67 vidéo la ci man 67 vidéo moo nekk ci clé USB bi xam nga tey problème bu amee rek da ngay def lépp teg mais 67 vidéo la sànq bi bougé di ñëw fee rek. fi ma fekkoon foofu jëru mooy ñu noo xool video lépp lépp 67 vidéo la lépp man la lépp mais duma tontu parce que xam naa ne li muy wax mer tax muy wax ak comme ni kii wax dañ la bëgg te duñ jot ci yow mais ku ma xam man ku ma xam xam sama mbapat fi ma jaar xam li ma daj man maa kii ñoo doon bokk tëdd ci mat laa bu ndaw kii moom moom wax na ko moom xool beneen sànni xeer bi muy sànni xeer nee na moom dul jëndal deux cent xaw la loolu lay lekk non bu ma ñaaw laa mañ barki Seydina Muhammad ah, maaruba buy jaay fonde da ngaa fàtte <laughs> ah. <laughs> la doon jaxase moom laa ko daan jëndal course bu ma njëkk daw maaruba waa buusa xam na ko barki Serigne Touba Mbacke si Maro Fondé ak Tiga Dege laa la wax. xam man daaw ma lekk xam nga daaw ma lekk mbedd yow. ah rek la daan lekk. donc Appa yaa ngi dégg ya ya bi licenciaire bi licenciaire bi. licenciaire bi non li bëgg a dégg loolu xam nga tey boo naan tey xaw ma maa tooñ maa la ko kii tooñu ma. tooñu ma xam nga tooñ mooy koo séq dara loo xam ne tooñu ma dafa juum juum day am. moom dem na ba ni man damaa juum tey bi may waxtaan ak magam bi tey man li ma waxtaan ak moom sax moom dina comprendre ni man mi am na fu ma ko bëgg mu àgg fa muy moom muy sayar man mag ji da ko wax ne ko man ci famille bi laa bokk bu xamul ni ci famille bi laa bokk bokk ci famille du ñëw di wax di mbar non non li ma def mooy ci famille bi laa bokk yaayam bi waxee dama ko mère coupé téléphone bi bu ci jàmm rek lay nekk te moom xamul ni déggante nag yaayam bi may dégg nag grand bi dama wax ne sa waaye dinañ naa la woowaat ci kanam léegi day am lu ñu waxtaane ak maak moom rek sayer bi ma wooyee bi mu waxee dama ko ne sa waaye bu fi ñëw dane ma damay ñëw loo bëgg mu ne ma noo ma ne kon jeex na bu sama rakk la dinaa wan ne la te loolu laa jëfee li des ci moom lay des ci ci moom lay des mooy te yàlla may na ko xale la mm-hmm. mais buy génn day génn mbooloo yàlla may na ko xale la mais dañ koy déglu mais bu mu yàq loolu yàq loolu mooy ñu lay jël dina dugal ci loo xam ne tey ñooñu bu doon ñoom duñ ci dugal seen bopp wala seen mbokk te guddi yi ku la ne am fit moytu ko ku la ne am fit am gi xam nga lan la lijjanti sa combat jàpp benn booy ci arène bi dóor ko ba mu ni mbët loolu mooy fit ku la dugal ci leneen barki Seydina deux jours yi yow war nga xam lépp ñëpp ni tekk arrière maa la woo téléphone ne la ana ñu doon wax nga ne gisuma kenn loolu rek firnde la te man nag doxewuma noonu man dama bëgg bu problème amee li may wax man ma gëm man li may wax ma gëm ko kii amul ma ko jàppal su ma ko jàppaloon duma toog fii su ma ko jàppaloon moom xam na man xam naa Zal Oni xam na Fallou Ndiaye xam na Pape ma tamit xam na ñu dox ci lu rafet man nekkuma woon fii. sama yi dama xonq nii ak pompe gaz bi ma dóor moo tax mu xonq mais nekk moon fii maa ngi woo nelawaguma xam na fi ñu nekk fi fi ma nekkoon mais bu ma tëddoon tey rek wala ñëw moon tey rek mënoon naa demee neneen boobaa man la ñuy màbb wallaahi nelawaguma ma gaare sama doon nekk samay science boobu lijjanti lijjanti problème bi toogee ak à côté moo tax dafa am ñoo xam ni tey buñ lay conseiller wala buñ lay wax dañuy wax loo xam ni sax comprendre luñ mm. des fois ñëw ci bu dégg nga guy gi gis nga vidéo bi mm-hmm. bu ko defee nag bu ak wu te kooku ki la naan gis nga vidéo bi bu soñoon ci tànk guy gi da koy fomp daal guy gi man booy yi may àndal barke alxuraanu karim ànd maag booy boo xam dina wax ci bu Siteu ku dul bu Siteu sax du ci wax kee moo xam sama jukko kee toog ne borom yëre buli bii kii lu mu la wax ci guy gi gëm ko laaj kon ndax sama kër nit dina fa toog di jëw laaj ko ndax dina fi toog di jëw nit amul parce que kilay lay jëw moo lay yóbbul ki moo lay yóbbul duma ko def man kilifa la mi barki démb bi affaire amee da nga da nga naan kii tuutuma lekk bu Siteu mais bu toogee maak moom lu rafet lay wax bi maanaam kon bañu ko loolu mooy nit parce que li tax mu def loolu bëggul ànd ak Bou Siteu ci naafeq Bou Siteu du dina ci loolu yàqula yàqula keneen léegi Bou Siteu bu gindikoo dina ne kat bi ma nekkoon ci jafe-jafe ah maar la kat nii la doxee woon kon kii sama nit la naa ko téye booy téye ci ay nit boole ko ci waaye kon naan la non gaynde gii nangal bàyyil bu ñëwee dama koy defaral fii kenn du defaral kenn kii kenn du defaral kenn xam nga tax man kenn defaral kenn bëri na ñoo xam ni dañuy dugal ci dara toog billaahi ñooy toog di wax si yow te du bu ma doon leeral Bou Siteu day jàpp gémmiñam dëgg de no xaar xaar rek day jàpp gémmiñam mais kii du ma dugal boppam ci loolu xalaatuma ko ci àdduna xam lu may dugal ci boppam mun def ka carrière bu baax comme ni guy gi def mu am lu ko ëpp am lu ko ëpp man loolu laa koy ñaanal bu la nettee ci guy gi xam nga jikko yi guy gi guy gi melul noonu moo tax bi ma déggee nga ni noo moog nas ñoo ci eh, bu c'était def erreur de man man xaw ma na non non xar xar xar non loolu am voilà voilà voilà moom laa lay wax gis nga. dañuy jaxase rek. non non njambaar yéen yéen yéen non yow non loolu